sëriñ bi mu ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokki taalibe yi ñun murit yi taalibe yi sëriñ Tuubaa yi sëriñ bi nee na ñuy nuyu bu baax a baax ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu joxe ndigal lii ñu yendoo wàccee alquran fii ak yi ci aju loolu moom moo ñu koy fasal waaye kàddu yi moom day kàddu cant yu jóge ci moom sëriñ bi cheikh wax cheikh Mouhamadul Mountakha wax na ni ndigal li gàtt na lool diggante bi mu ko waxee waaye nee na am na ci lu kawe njortam ci biir dëkk bi ak ci bitti dëkk bi ci biir réew mi ak ci bitim réew fu ci nekk rek itti am na fa lool am na ci barab yoo xam ne sax mboolem kuy jullit rek tënku ci tariixa ak ku tënkuwul ci tariixa maase nañ joxe ndigalal sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax mbooleem mbokki sëriñ bi di ay taalibe ak seex si nga xam ne sëriñ bi moo leen seexal wala ñim defar ci baatin moo xam muy góor wala muy jigéen am na ci daara yoo xam ne ay téeméeri téeméer la te ay soxnaa ko jiite daara yi góor ñi jiite it moom ci biir dëkk bi rek ay junni junni la kon loolu sëriñ bi wax na ne jàkk yi ci dëkk bi yépp ak daara yépp yëg na ne fu nekk ña ngay doxal lañ war a doxal kon na loolu mu ngi ciy sant yàlla bu baax la ca des nag muy muy defar ga ak defare ga nañ ko bàyyi ci loxoom ñu maase ñun ñëpp nag ñaanal ko yàlla yàggal ko fi te defal ko bëgg-bëggam mook mbooleem ñim bokkal Sëriñ Tuubaa ak ñi sopp sëriñ Tuuba ak ñi topp sëriñ Tuuba wéral suñ borom wéral ay cëram guddal ay fanam ndax taxawaayam ci yoon wi ci lislaam bëgg mooy bëgg ñëpp am jàmm bëgg ñëpp jariñu loolu moo waral bis bi te am xam ne luy tax a àggale nit ca yàlla moom bokk na ci ñooñee yàlla na ko fi yàlla yàggal ñun donga yi itam mu yàgg noo jox ndigal ñu yàgg koo jëfe te buñ koy jëfe tam suñu borom defal ñu ay xéewal bala ca lépp ñu def ko ñun donga yi ci barkeb Sëriñ Tuubaa jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. naa xewal eh, yi sëriñ bi wax na